waaleykum salaam waaye Thierno Cheikh. Ah. waaw kii ne Thierno Mouhamadul Amin Sall Louga. Eh, Thierno dama lay suivre si Facebook bi. wallaahi macha allah maa ngi lay ziar. yàlla na yàlla boole nangul na ngeen def ak coono bi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. de xam naa ne dinaa lay dégg bari ma mhm. itam. Mhm, mhm. Eh, léegi damaa déggoon ñu ne weer wi am nañu ko gis Thiès ci kër Issa. ma téléphoné soxna Aminta. Mm-hmm. mu ni ma yow mii bokk nga ci ñi ko gis mm-hmm. waaw mm-hmm. xëy na wax bi doy na ma sax waaye dama ne woon naa la woo yow comme xam naa la xam nga ma euh, nga nga leeralal ma daal ak ñi ko gis ak nu mu demee daal waaw wax dëgg la euh, di la sant bu baax Thierno tamit ni nga def kontaan naa si yàlla fay Euh, dama dama jóge tey sax laa jógee Dakar. Mhm. dama jógee Dakar. Mhm. ma ñëw fii si man Thiès laa jullee. Mhm. léegi nag ñun fi ñu dëkkee boo ñëwee du miin nga Thiès de ah. waaw xam naa xam naa fa miin ñu tuuti rek. waaw boo ñëwee ba cité bala boo ñëwee ba mairie bi mooy place de France. waaw am na benn tali bu noonu dem euh, cité séminaire bi balaa waaw. foofu la nekk bu ko rombee bëtt hmm? dem si biir bi nga romb cité ouvrière après cité ouvrière yaa ngi mel ni kuy dem Fandène sur la route de Fandène bi ñun nag si foofu lañu dëkkee hmm. diggante ñi ngi nekk diggante Thiès Nord commune bu Thiès Nord bi hmm. ak euh, commune bu Fandène bi si diggante boobu sancaan bees la ay tool la ñu dagg ko kër léegi euh, man bi mu dogee noonu hmm. ba pare bi ñu dëkkee bi ma dogee ba pare hmm. ma ma daal julli timis tax si kër gi laa julli hmm. bi ma jullee rek dama yëg si kaw terrasse bi di séntu weer wi xool naa ko nag ab diir nii rek soo koy gis mu sew rucc nag bi ma ko gisee ma woo suñu waa kër sama mag bu góor Bachir mhm. ak sama ñaari rakk Mouhamed ak mhm. Mamour waaw ñu xool ko ñu gis ko mhm. ma woo jigéen ñi ñoom ñu ñëw gis ko waaw léegi ñun li tax ñu mën ko gis mooy que ni ñun fi ñu nekkee dafa àlle nekk ñu ci ville bi parce que bu ñu nekkoon ci ville bi duñ ko gis kër yee koy kiyee moo koy muura waaye fi ñu nekkee dafa àlle mhm. moo tax ñu gis ko te bi si mhm. tegu mooy ñun ay kër waruñu mhm. suñu dëkkandoo yi nekkul yu ñuy jegeyantoo moo tax suñu sécurité bi sax demewul noonu euh, jàkka ja jumaa la sax jumaa ji xaw na xëcc ma woo imam ma laaj ko ma ne ko imam ndax séentu nga weer bi gis nga ko ndax ñun ñi gis nañ ko fii si kër gi imaam ne ma moom de séntuwu ko mhm. moom si calcul la ka mhm. ndax comme que dañoo ne weer bi xëy na dimanche mhm. mu jàpp ni lundi kenn du ko gis mardi la ko ñëpp di gis léegi nag bi ma bi bi ma waxee loolu ma ko ah kon baax na léegi nag am beneen imaam bu nekk buntu depo ku ñuy wax Abdul Xaadir mu woo ma bi ma mu ne ma dama jot sa benn odio ñu ne ya yow yaa gis weer bi mhm. ma ko waa dëgg la mu ma ah man de doy nga ma sa ragal yàlla mhm. doy nga ma sa jullite mhm. wante lii seen malheur mooy yéen kese yéen a dëkk ma ko ah loolu dëgg la wante nag yonent bi de bi sàmmkat bi ñëwee nag gis naa weer bi dafa yéen képp yéen a sax moom yow yow ah. yaa ngi ko gis ci sa waa kër ay mukallaf lañ ay jullit lañ wala loolu la ah, mu ne ma nag Sénégal dafa am nu mu bindoo mhm. d'habitude dafay am yuñ lay laaj loolu la te ñu la xamul hmm. mun nañu am beneen appréciation bi waaye man mi la xam te doyloo naa la ta xam na ne li nga wax dëgg la hmm. ma ne ko waa la nag man nag gis naa ko bumu mu xëyee incha allah hmm. dinaa naan ndox xaar julli it ma julli it bu ku doyloo alhamdulilah ku doyloowul nga mottali sa yéene waaye man de ku dee yaag sa bàmmeel sañu maa wax ni gis naa weer te gisuma weer bàkkaar ba attanuma ko mhm. kon yàgg naa fi ba toll ni mosuma wax ni gis naa weer lu dul tey mhm. te gis ko moo ma dugal ndax gis naa ko te sañu ma noppi mhm. moo tax ma wax lii daal Cerno sëriñ waaw nii la demee. moom kay yow yaa ngi ko. man man maa ko gis ak hmm. Thierno Bachir mun naa la ko paas téléphone. Hmm. ak Mamour Mouhamed dafa génn. te ñun kese ñoo dëkk nag famille lañu mais ñun kese ñoo dëkk. waaw ana ana ana Thierno mi ngi foofu Thierno Bachir mi ngi foofu. waaw Thierno Bachir mi ngi fi Mamour mi ngi fi. xaaral ma jox la ko. comme ça ñoom it ñu nga nga ñoom. Hmm, su ko defee tamit nga nga nga ak ñoom. Bachir asalaamaaleykum man Thierno Bachir. asalaamaaleykum. waa Thierno Bachir. waaw eh, ziar naa la. ni ngeen def waay. man de li ma Cheikh wax sax doy na ma sëkk nag. Uh-huh. waaye comme Sénégal dafa naqaree waxee. waaw loolu lu leer la wax man moom man moom wari naa. Uh-huh. <laughs> waaw léegi dafa am ñu bari ñoo xam ne si dañ maa doyloo di ma déglu kay ay kilifa ma bëgg bu may wax ak ñoom rek parce que yéen ay sëtu Cheikh mar fuuti yéen ngeen ay borom xam-xam yéen ay kilifa ngeen ñu ragal yàlla ngeen seen maam du leen bàyyi ngeen di dugg ci yenn yi waaw léegi moo tax euh, waxu Cheikh yi de ma ne ko nag léegi Thierno Bachir moom jox ma ko mu waxal boppam ni moom gis na weer waaw waaw waaw. moom gis na ko waaw. fekk nu ndog ba ni ni ni dog koor gi ba pare ah. si na ni yéegee xam nga ñun fu ñu dëkkee hmm. Thiès ni mel ni kii dem Fandène ñu ah. ñëw dëkkee si guddi bi bay dem côté am na usine ferraille ba ñu ko jot hmm. ñu ñëw si topp hmm. amaatu yeneen am na yeneen kër yi nekk si biir mais ñu ñëw nekk si guddi si ko dal bi suñu ko terrasse bi yéeg gis weer bi waaw weer wi mu féete kottu sow. Cheikh waaw Cheikh Nubé kon yéen yéen da ak ak. mel ki dem yoonu Dakar wax nga dëgg non déedéet xam nga moom. waaw foofu nii daal la xam ne ñun ñun ñun duñu waxantu loo xamante ni. dama eh, ni man xam nga li ma soxla woon coow Thierno waxal sa bopp ni gis nga ko te loolu wax nga ko. ak ak kan ak kan yéen ñaar ñi ak euh, ñun ak sama benn raf sama cousin bu ak sama benn cousin bu jigéen bu góor. ana ana cousin am waaw mi mi ñëw noonu léegi nii. waaw kay jox ma ko. waaw ñun moom du ñu waxantu lu leer moom. waaw yow Thierno Bachir am ku ko ak man li lislaam moo wax ne moom boo si tegee sa bët war naa wax ne ñëpp ne gis na ko. waaw moom la si sart sart boobu ñuy doxee. kay. waaw xam nga ñun du ñu warloo kenn koo xamante ni après rek ñu ñooy yenn bàkkaar man de li nga wax leer na naa ñu laa wax. léegi ana ana ana ki ci des. xaaral ma jox yow Mouhamed waxal rek ñu bëgg lu gën a leer. mi ngi fi. waaw Mouhamed mi xaaral ma jox la ko. waaw kay jox ma comme ça góor dafa génn àdduna nekk fi moo tax. Mhm. suñu wayjur bu jigéen lañ fi nekkaloon te bi ñu koy xool moom yéegul woon ci kaw. man man man maa ngi tudd Cheikh Omar Tall doomu Amadou Madani Tall. wax nga dëgg. waaw xaaral ma nee waaw membre daal jox ma jox ma membre. nekk le fait ngi leen di sonal de waaye xam nga lu tax. Uh-huh. Sénégal ni mu bindoo moo tax. Uh-huh. parce que euh, xam nga ba Cheikh waxee doyoon na ma sëkk man. Uh-huh. mais comme dafa am ay ay ay centaine de nit ñi ñu ñuy déglu. moo tax rek ñu bëgg yow nga wax comme Thierno Bassi wax na Thierno Cheikh wax na yow it nga wax rek. allo moom dëgg la waaw waaw ñun euh, ñun fi ñu dëkk mooy këri saa lañ dëkk ci usine bi hmm. te fi ñu dëkk ay kër wóoruñu hmm. te ñun avant bi ñoo julle ba pare ndogu hmm. daal di ne xaar ñu yëg ci kaw sioma sax mu am idée wu yëg ci kaw ne de moom mooy njëkk gis weer bi après ñun ba ñëwee moom mu wan ñun si lañ tegee suñu bët ci weer wi mhm. après ci lañ ne comme que weer bi feeñal mhm. ñu daal ñaan suñu soxla ba pare mhm. ñu daal nekkoon suba korite la te weer bi weer bu sew la xam nga weer bu bees moom pour nga gis ko day am problème ak ak nu asamaan si léegi bañ ko gisee ñu ne suba ñun dañuy wari incha allah léegi nag loolu ku mu ñu doy nañ ñun ñoo si teg suñuy bët li ngeen di daal doy na léegi daal yow euh, ci Mohamed waaw li ñu bëggoon am nañ ko mhm. ay julit ngeen di situ Cheikh Omar Fouti waaw loolu euh, di di ñu ragal yàlla di ay mukallaf mhm. te maanaam mat ngeen ñeenti ñoo xam ne si ay seede lañ donte ay jigéen ñi ci bokk duñu leen tudd waaye ay góor di doy na sëkk yi léegi tey na waaw ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen jégul na ci ci coono bi waaw lii fa la ba nga xam ne faa mu leeroon waaw kay baax na baax na kon kon yow kon euh, Cheikhou la ak yow Mouhamed non Mamour la Mamour Mamour Mamour ceeb salaamaaleykum. waaw Mohamed. waaw. Ah. xanaa bëgg lu gën a leer rek waaye ba Cheikh waxee doyoon na sëkk waaye de comme comme Sénégal ni mu moo tax rek yow moom yow bokk na ci gis weer yi. Ah, waaw ma kon ba tey ba mu gën a leer kon yéen ñeent ñi moom gis nañ ko gis bu wóor. di ay ah. julit di ay mu kalaf bu mak Cheikh Umar Fouti radiyallahu taala am kon nag eh, lii war naa doy képp kuy sénégalais. waaw ah. bi ñu sukkandiku nag ci ay màkka gisuñu kook màkka wóoruñu ak loolu suñu yoon nekku ci waaw ah. waaw lii nag buñ ko boole xabaar yi nga xam ci dégg nañ ko ci diggante Mali ak Niger lool dafay dem daf ñu gën a dëgëral waaw ah, kon waaw Niger gis nañ ko Mali gis nañ ko waaw waaw loolu leer na nañ waaw kon nag kon nag ñi ngi sant di gërëm kontaan lool nag ci disponibilité bi ngeen ñu may waaw yàlla yàlla fay leen jërë ngeen jëf jaajëf. waa Bakaraw Cheikhou. waaw. waa kontaan nañu lool. waaw alhamdulilah xam naa dinaa enregistré numéro bi tamit. kay après danañ gën a jokkoo incha allah. incha allah. jërëjëf jazakumullah xayran. Seydi Sall. baax na waa mbokk yi kon yéen a ko déggandoo maanaam ñii ñeenti ñu bokk ndey ak baay lañ gisandoo weer wi gis bu leer nañ di ay julit di ay euh, mu ji am na ay jigéen ñu ko gis mais jigéen moom tudduma jigéen ñi waaye kon mbooloo gis nañu weer yi ñoo xam ne ñu maandu lañ ñaar rek doyoon na ci far ñoom ñeenti xaw ma juróom ñëpp wax nañ ñoom ñoo gis weer wi lii nag moo xoon ma doon gën a gëstu yaakaar naa lii bu ngeen ko dégloo da xam ne xabaar yi wér la jërë ngeen jëf seen mbokk Mouhamadul Amin Sall